biñ demee ba suba jot taw ba du am xam nga lu koy waral d'accord lañ waxoon wér na tege na ci xam-xam waaye yàlla mooy dogal moo tax biñ foogee ni fa la yam ngelaw dévié waat moo tax borom bi subhanahu wa taala wa indahu ilmu saa mbirum alaxira moo ko xam xam nga borom baa ngi wax ma tadri nafsun maada taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut fan ngay dee kañ ngay dee looy am ci alal loolu lépp kenn xam ko yàlla rek moo ko xam sunu borom ni wa ilayhi turjaun te ci moom yàlla ngeen di dellu subhanahu wa taala sunu borom ni wala yamliku mënul mukk alladina gaa ñi nga xam ni yaduuna min dunillah ñi ngi leen di jaamu te duñ yàlla te tege ci ak neen yàlla mu ni ñooñu mënul ñukk ashafaa diram mu kenn déedéet sëriñ laag xërëm laag buxaaba laag xaatimkat laag kum mën a doon ci xeet yi ñuy jaamu te tegewul ci dëgg sunu borom ni kooku du la mën a ram illa man shahida bil haqq lu dul koo xam ne dafa seede dëgg muy sax ci njub ba yàlla gërëm ko mu doog a mën a rambaate ndax xam ngeen wala yasfauna illa liman irtada kenn du ramm lu dul yàllaa la gërëm ni la rammal kenn duñ ko ramm lu dul yàllaa ko gërëm ni nañ ko ramm wa hum yaalamuun sunu borom ni ñi nga xam ne dañoo seede dëgg baati seede yi sax ci yàlla mu ni ñooñu daal ñoo ñi mën a ramm waaye ku dul ñoom doo ko mën sunu borom ni wala in saaltakum moo ne boo leen laajee ni man xalaqa alsamawati wal ard kan mooy ki sàkk asamaan ak suuf la yaqulunna allah da ngay dégg ñu ne yàlla moo ko def maam yéefar yi nga xam dañ doon jaamu ay xéeram ñoom la sunu borom di wax mu ne boo leen laajoon kan moo sàkk asamaan ak suuf dañuy wax ni yàlla xam ngeen gis nga doomu aadama yi ñu muus lan ñu yeewu lan gis nga bi bokkaale yàlla amee ba léegi doo dégg mukk ni sa maama moom asamaan te moo ne gaa ngi dégg di diwee borom jamono xam nga waaw kay ku nekk borom jamono kay war ngaa mën a asamaan wax dëgg yàlla xam nga gis nga léeg-léeg gis nga ñi defuk caay-caay ay technicien dëgg lañ xam nga technicien mooy koo xam day jekk créer ay affaires yoo xam day ëlëmloo xel nit gis nga ñi bokkaale yàlla ñi defu caay-caay ay technicien dëgg lañ gis nga ni ñuy nekk ay technicien ci wàllu wax mooy bu ñuy wax dañuy seet ay affaires yu lënt yoo xam ni yaxtamilul amrayn mën nga caa déggee lii mën nga caa déggee lee waaye li nga xam ni ku ko wax fen duñ ko wax saamaa moom suuf si moom man ah man dégg gu ma ko di way borom asamaan si man dégg gu ma ko waaye di way borom jamono di way borom nangam nangam di xam nga di way borom moo am na am na am moo am moom yax yax yaxtamilu tasbih ak tashkik mën naa jaxase nit ñi parce que comme kiñ gisoon xëy na amaana da doon ñaan muy muy nangu ci misaal ci seen jamono laa ñu ne kon mooy na am moo am xam nga loolu moom pour nit gëm ko day yomb waaye nag diw moom moom moo woon asamaan si moom boo ko xamee sama taalibe yi njëkk xam da ngay kàcc nag moom parce que asamaan si moom yàlla rek moo ko moom subhanahu wa taala moo tax gis nga diwa diwa diwa diwa nangam diwa ñu moom xam nga loolu dafa yomb diw moo ñu moom parce que affaire mënu koo justifier diw moo ñu moom léegi mënoo fee nekk naan moomu ñoo moo ñu moom parce que fekkeewul affaire bi waaye asamaan moom ñi ko fekkee ñi ko fekkeewul ñëpp xam nañ ni képp ku ni diwa ko moom wax nga lu amul te it nag gis nga lii kéemtaan gi mooy doomu aadama yiy jël yëfu yàlla di ko jox seen moroomu doomu aadama gis nga li lay wan ni li ñuy def ñoo ko tey gis nga saa bu ñu demee ba gis loo xam ni xaw ma nattub yàlla laa ko mën a tuddee xaw ma gindeekub yàlla lan gëmoon lépp la ñuy weddi defe naa yéen a ngi fàttaliku ca tafsiru daaw ci koor gi ci bunt bu mel nii waxoon naa leen xissa bu mel noonu benn waaye moo doon nettali mu ni waa ji dafa nekk ca bitim réew di lëggéey yónnee ak kilifaam ni ko naka takkal diw waa ja jël kilifa ga jël alal ja moom faf takk ndaw sax te lii du ay léeb de lu am la maanaam lu am la fii ci Sénégal gi mu takk ndaw sax ah waa ja fa mu nekk la nekk dégg ni takk na ndaw si mu daal di ñibbisi bi mu ñibbisee mu ñëw di ziyaar si xam naa boobu moom du nekk ziar moom da doon ñëw waaye boobu moom dana wuteeg ziar yu njëkk yi mu ñëw bi mu yegsee fëtëy canapé bu gudd bi kilifa gi toog nit ñaa ngi sukk karaam mu ñëw daal di toog ca canapé moom ah gars yi daal di sigg xam nga loolu dafa kéemaane lool xam nga sëñ bi moom kenn toog ak moom mu jékki-jékki ba mu yàgg tombeek dafa xiin asamaan si daan ni gurung fekk waajaa ngi lok mer moo xam ni asamaan si ni gurung rung rung rung rung mooy yëngu loolu mu ne yaay wax katu dëgg bi de keneen ku dul yow lu mu wax rek jaar fu bona bona bona bon ndax di joxañ mu ne yow mii yaay wax katu dëgg bi mooy yàlla mooy yàlla moo doon yëngatu boobu yëngal asamaan si mooy yëngu yi mu ne yow wax katu dëgg baa ngoog de yow de loo wax dëgg la keneen ku dul yow lu mu wax rek day daal di jaar foo xam ni kenn du fa yegg ah kilifa gi daal di jël loxo bi xam nga léeg-léeg booy wax ak nit daal di koy xaw a tàpp ci ginnaaw daal di koy tàpp ni ko ah sa waay yaa ngi nangam bi mu ko tàppee rek nag mu amu bunt nag mu xàcc direct rek dóor ko mu ni ko may wax nga may dóor yow nga may njëkk a dóor xam nga njëkk koo dóor waaye bunt la doon wut léegi xoolal kooku na mu gëmee woon ak fa mu tolloon ak tey fi mu toll moo lay wan ni kon dem na ba am basira gis dëgg moo tax ma ne la ñu ci bare bare bare bare bari dañuy dem ba yàlla wan leen basira ñu xam ne lii ay caaxaan la gis nga doomu aadama yi suñu bëggee noppal dañuy jël cërëb yàlla bàyyi ko suñu borom jël cërëb doomu aadama jox ko ko suñu borom subhanahu taala mu ni boo leen laajee ku sàkk asamaan ak suuf dañ naan yàlla rek moo ko def suñu borom mu ni fa anna yufakuun kon naka ngeen di fentee di waxal yàlla lu amut man dinaay wax xawma man réew man ndax man daanaka déw ma fenn ci réew yi waaye Sénégal gi ma xam moom daanaka moom bu fekkente ne li ñuy wax am na kon da nga naan yàlla deseetul dara ndax am na koo xam ne mooy dekkal jàng kee mooy borom mu am kee moom bu waxee mu taw mu taw kee moom lii kee moom lee kee moom lee kee bu ñu demee àllaaxira danaan wóoleel ma sama ñi ngi dugg àjjana àjjana kee moom bu bu malaaka bi ñëwee faat ab taalibeem sax te tàgguwu ko mën naa dem nanguwaat taalibe nit ñi faatu ci bis boobu yépp loolu lépp yéen a ngi koy dégg ci dëkk bi te li gën a metti ci xol mooy ay nit ñoo koy wax def ko cassette publique ñu koy teg ay nit di ko dégg di fotasu te gis nga saa boo taxawee nga dénoncé ko wax ko rek ñu ne dangaa nangam léegi ban ban équilibre ban maandute moo am ci toj tojaanga yi tojaanga yi ay nit di ko wax te ñeneen duñu leeral ay diw sàngam ah dafa am dafa tukki woon ñëw fekk ab taalibeem dee mu ne ah malaaka man la yore sama taalibe te tàggu xaaral ma maa ngi ñëw léegi mu daal di ñu fay génn dugg ci biir néeg bi dem ca alamul arwaax nanguwaale ruu yi faatu woon bis bépp mu ne ko ñàkk nga li nga faat lépp tey lii ci ay keset lañ koy def nit ñi di ko déglu wallahi bii pas-pas doomu aadama bu ci faatu di nga tàbbi sawar ku ci faatu da ngay tàbbi sawar insha allah inna alladina kafaru min ahli kitab wal mushrikina yàlla moo ne fii naari jahannam gis nga lii la ñuy dund bu fekkonte dañoo nangu ah diw de ko baax la diw de ko sell la moom de bu la ñaanalee mu nangu moom de waaw yooyu kenn du ko weddi parce que jàpp nañu loolu lu mën a nekk la nit mën naa àgg ci sellaay ba yàlla may ko ci ay may loo xam ne yow xam nga ni lii kéemaan la mën naa àgg ci sellaay ba su ñaanee yàlla nangu mën naa àgg ci sellaay bu defee intervention suñu borom wuyu ko yooyu yëpp mën naa am waaye nan fa yem maanaam bu ñu yemoon ci niñ war a yem benn problème duñ ko waaye déedéet dañuy jël yëf yoo xam ne yëfi suñu borom la ah nga xam ni fépp foo war a fàttalikoo yàlla tudd ko fa rek doomu aadama nga fay tudd sunu borom mu ni wa qiilihi yàlla de xam na njàmbat ga njàmbatug yonente bi saa gis nga waxin wii nag waxin wu xóot la ci luxal arabiya nga xam nga bu dee ci wa qaala rasulu ya rabbi loolu dafa leer yonente bi nee na yàlla nit ñi ci boppam gàddaay nañ alquran loolu daf maa naqari man yonent bi fii nag ak kalaame la waaye kalaame la goo xam ne dafa nekk ci buntub yàllaa xam kumpa yàlla mu ni man maa xam kumpa te ci moom ngeen di dellu àllaaxira ku fa ñëw doo am njariñ lu dul da ngaa nekkoon ku jaamu suñu borom doo mën a ràmm kenn loolu lépp yàlla xam na ko moo tax ñu wax ko mu ni waqiilihi ak jàmbat gi yonent bi doon jàmbat naan yaa rabbi yow sama borom inna haulaai gaa yii kat xawmun laa yuminun aw nit lu ñu woo xam ne ñoom duñ gëm leeral nañ li ñu war a leeral lépp waaye ñoom day duñu gëm dañoo weet féttéerlu loolu nag ak njàmbat la sunu borom mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fasfah anhum baal leen li nga xam ne mooy bàyyikoo ci ñoom di ñëw ci yow ci ay xeeti wax yu bon dañ laa xas dañ laa saaga dañ laa menacé dañ laa tuumal dañ laa dénoncé yépp luñ la defal ci ay xeeti lor mu ni muñ ko fasfah anhum jéggal leen ci lori wax yeeg lori jëf yi waqul salaam yow moom na nga séq ak ñoom jàmm loolu mooy tekki wa ida xatabahum aljahiluuna qaalu salaama sunu borom mu ni fa sawfa yaalamuun ñoom day xalset nañoo xam bu ñu dajeeg sunu borom lan lañ fay fekk ci xeeti mbugal loolu nag la yonent bi def sallallahu alayhi wa sallam muñ na mboolem lu ko ci doon fekk ci ay lor te waj ko ci roy muñ na lu ko ci doon fekk ci ay naqar te waj ko ci roy sunu borom ni fa sawfa yaalamuun bu ñu dajeeg sunu borom leen di xaar ci mbugal loola kat dinañ ko xam kon loolu mooy jeexintalu suuratu zuxruf noo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala an yataqabala minna innahu huwa alsamiu alalim wa an yatuba alayna innahu huwa altawabu alrahim noo ngi koy ñaan an yajcal alquran alazima rabia qulubina wa nuura sudurina wa jila axzanina wa zihaba humumina wa humumina noo ngi ñaan yàlla an yataqabala minna baqiyat alsalihat wa salihat alamal wa sal allahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain